Salma il est des gens en place place moom gën a bañ. pigeon voyageur la ci plateau bi. <laughs> dégg mhm. ma la par force doole mbaam. alors Salma kon ma bàyyi la ak ñaancoo bi. Mhm. alors euh, comme niñ koy defee rek chaque mardi Aïcha dinañu waxtaanee chronique euh, sécurité. aujourd'hui ñu war a def benn taxaw seetlu ci la sécurité en Casamance euh, ci li ñeel am ay jéego yu nga xamante ne nag mu ngi ci. fan lañ ci toll ak yan jéego lañ ci doxa def jot def jamono ji dina ci def euh, taxaw seetlu euh, au-delà de ça aussi wax ci cybercriminalité euh, wax jamono ji délinquants yi ni ñu taxawee temb rek di arnaque ñenn ñi entre autres dinañ ci def taxaw seetlu mais Pape mu mel ni foofee ñuy woowee jakkaay am na lu nga xamante ne xew na foofee ndax lu tollook 255 combattants du MFDC daal dinañ leen démobiliser ngir nag ñu rendre armes yi nga xamante ne moom la ñu yor détruire ko euh, par le feu am ay jéego yu am solo yoo xamante ni daanaka gouvernement bi def na ko ci on a vu ci àddu waaye yow tamit am ay jéego yu nga xamante ne je pense que euh, tu as eu à le faire donc euh, ñu ngi doon suivre actualité bi depuis boobaak léegi mais xëy na boo ci mënoon dikk rek. sama sama xarit bu baax bi <laughs> euh, Aïcha ma nuyu la yow it nuyu suñu auditeurs ak téléspectateurs yi euh, xam nga chronique bi tey dafa dafa dafay dafay dafay ala daw me parce que bañ ko commencé def ba léegi mhm. militaires yi dañoo ñetti semaine ngi la ñuy kaas ne ma ñoom daal dafa mel ne ñoom bokkuñu force défense et de sécurité yi. ñoom gendarme mën na leen wax police douanier garde pénitentiaire mën na leen wax ngeen dëgg de. Mm-hmm. force de défense et de sécurité. balaa ñu naan naam. ca l'armée nga ñuy wax njëkk wax militaires yi. parce que ñoom ñoo yore la défense nationale. ñoo aar sunu dëkk. aar sunuy frontières. Mm-hmm. fexe ba nga xam ne seytaane wala samba sura bali du fi mën a dugg donc wax fa dëgg yàlla tey moo tax ma ne il faut ñu delloo leen njukkal mhm. dañ leen di delloo leen dañuy jël prétexte li nga wax mhm. mooy processus de paix bi fële bi am ci Casamance di wax ni que tey ji bu ñu demee bay wax procesus de paix mhm. armée nationale bu Sénégal daf ci jouer rôle bu am solo parce que bu doon dañu bàyyi rébellion bi fa amoon noonu ne dañ koy régler politiquement wala daf ñu koy jéem a régler neneen kon ñii duñu tal naan dañuy dem négocier ji ak état du Sénégal dañuy waxante dëgg mm-hmm. c'est parce que armée daf ci def liggéey bu am solo depuis 1982 mm-hmm. même bu dee mun nañ ci noter ay dérives mënu cee ñàkk mm-hmm. mais ñu def ci liggéey bu am solo fexe ba nga xam ne lii di MFDC mosul taxaw samp drapeau ne quartier bii wala village bi ñun ñoo ko moom mhm. donc loolu dañ leen ciy félicité mais liggéey boobu également armée nekk ci ndéem amuñu mission euh, de euh, amuñu mission euh, enfin ndéem am nañu mission de police administrative mooy maanaam yoon may na leen fu police wala gendarmerie nekkul mhm. ñoom yenn liggéeyu police administrative yi ñoom ñu def ko mhm. donc ñi ci def liggéey bu am solo ci wàllu prévention et consort ci wàllu boobu nag Euh, la ñi nga xam ne euh, ñoo bokk ci faction jakaay parce que mouvement MFDC il faut le dire dafa diviser woon en plusieurs faction d'accord euh, comme mbir mi xaalis la woon rek affaire bu bandi la woon affaire de xaalis la woon mhm. donc ku dem tuuti xaw a am tuuti ay nit ber sa daara daal di créer sa faction taxaw fii am ay politiciens yu nekk sa gannaaw ngay yëngal ñu lay jox xaalis donc mhm. affaire bi loolu la woon kese alors armée taxaw ci bëñ ñii nga xam ne mooy waa jakaay dem ba ci biir au bout de 42 ans. Mhm. ne ñoom nag wax fa dëgg yàlla mënuñu dugg ci àll bi ba ñuy nekk xale fekk fa seen i baay. Mhm. ba tolloog seen baay maanaam lii seen baay doon def ñu mën ko def te gisuñu mujjantal. donc mhm. ñoom dañuy génn maanaam dañuy teg armes yi daal di génn ñëw delluwaat seen dëkkuwaay. delluwaat seen njaboot maanaam nekk dans la société sénégalaise. loolu bañ ko defee nag mu am lu am solo la nga xam ne euh, benn euh, association bi ñu naan dynamique de paix pour la Casamance daal di ci jóg depuis deux mille vingt. di ci dox di ci dox di ci dox ak l' du Sénégal ba ñu démobiliser wax nga nombre bi nga xam ne ñëw démobiliser. deux cent cinquante cinq voilà euh, démobiliser d' abord dañoo démobiliser ba pare désarmer delloo armes yi. Mhm. et tout léegi nag mu amoon. Euh, benn projet ba nga xam ne USAID ne da leen di gunge. Hmm. gunge bi mooy il faut ñu utal leen ay këyit waaw parce que tamit ka nga xam ne 40 ans wala cinq ans wala 30 ans mu ngi ci àll ba kooku moom këyit amatu ko bu fa amee jabar jabar ji amul këyit bu fa amee doom bi amul këyit hmm. donc loolu nekkoon projet bi nga xam ne USAID daf ko financé. Hmm. bi mu ko financé ñu dem ba ci biir mu amaat yeneen combattant yu nekkoon ci yeneen bërëb dégg coow loolu. ne ñoom it ñoom bëgg nañu ci kayit yi. mais comme nag dañu amoon ay njaboot ñu ne waaye ñoom it bu leen jox kayit ñoom kese fàtte seen soxna fàtte seen njaboot yi. donc nañ ko defandoo ci ñetti département Ziguinchor Bignona Oussouye. mu nekk opération bu am solo. état du Sénégal dans la plus grande discrétion daal di jox ndigal ministre de la justice bi fi nekkoon muy euh, nu mu professeur Madior. Ismaël Madior waaw. Ah, donc ñu nekk di ci liggéey. di ci liggéey di ci liggéey ba def la ñuy wax ay déclaration tardive de naissance. bi ñu ko defee ñu dem xayma entre combattants yi seen soxna seen doom. Mhm. ñu toll ci cinquante cinq mille zéro quarante et personnes yu ñu war a jox extrait de naissance comme ça ñu mun a ut carte waaw mais mbir moomu. Hmm. wax fa dëgg yàlla tamit armée taxaw ci. taxaw ci maanaam permettre ñi nga xam ne ñoo doon def recensement yi di dugg ci àll bi armée escorter leen nit ñi mën a def seen liggéey convenablement. Hmm. sans aucune pression. fii nga xam ne ay zone à risque la yu am ay mine et consort armée fexe ba aar nit ñi nit ñi mën a dem recenser ña nga xam ne ñoo soxla woon ñu utal leen këyit. Hmm. mais problème bi tey justement boo gisee li euh, ñu ciy wax sax mhm. dañ dem ba jamono jii ñu nekk nii war leen délivrer extrait de naissance président tribunaux d'instance yi mooy tribunaux région li ñuy wax tribunaux départementaux yi mhm. taxaw na ñoom du ñu paraphé du ñu côté registre yi du ñu paraphé registre yi nga xam ne mooy état civil pourquoi parce que nee nañu ñoom ñoom la yoon may ñu daal di def li ñuy wax audience foraine te mbir mi du mbiru audience foraine xam nga ndax lan du mbiru audience foraine. dama ngay fàttali fii te loolu il faut que le gouvernement là jël ses responsabilité parce que y ce qu'on appelle la continuité de l'État. bi État du Sénégal di négocier ak César Atoute Badiate fële ca Guinée-Bissau ak délégation am. mooy affaire Boffa Bayotte. waaw. ba ñuy négocier César Atoute Badiate amul woon extrait de. Mm-hmm. amul woon carte d'identité amul woon passeport ministre de l'intérieur bi fi nekkoon Antoine Diome mm-hmm. moo gisee ministre de la justice ñu gis ni am na porox ndool bi nga xam ne mu ngi ci code de la famille mm-hmm. bu may euh, yoon ñu mun a def déclaration tardive sans audience foraine ci porox ndool boobu nañ dugg utal ñoom César Atoute Badiate ñii ay de naissance soo demee mairie bi ñoon mairie Ziguinchor da nga fa fekk. 2020 2022 bii nañ ko defal extrait de naissance. Mm-hmm. ak moom ak ñoñam ñu defal leen extrait de naissance defal leen carte d'identité defal leen passeport ñu mën a tukki. Mm-hmm. donc loolu bu ñu ko defee war buñ ko defalee ñooñu war war nañ ko mën a defal ñeneen ñi léegi nag problème bi nga xam ne nag boo gisee sujet bi am solo. Mm-hmm. mooy que fan yii nii nii barki Demba Ndiaye dynamique de paix boobu dafa former jabaru combattant yi mooy ñi nga xam ne. ñii doon xeex yore gànnaay yi seen jabar yi ñu nekkuloon ci àll yi dañ leen génne indi leen ci benn centre di leen former di leen former maanaam ci nu ñuy defaree jus buñ la joxee xaalis nan nga mën ko nan nga ko mën a fulee euh, booy jaay lii booy def lii ainsi de suite mm-hmm. mais tey femmes yi financement bañ leen waroon jox mënuñu leen ko jox parce que amuñu carte d'identité xam nga ndax comprendre nga. waaw loolu da leen di faciliter seen réinsertion seen réinsertion. parce que loolu mooy DDR. démobilisation désarmement réinsertion. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais tey def nañu démobilisation bi def nañu désarmement mu des réinsertion. Mm-hmm. te wax fa dëgg yàlla nag boo gisee ñu ci ma ciy wax boobu ak léegi euh, question boobu dama ko yàgg di ko topp di ko topp di ko topp. fan yii paase daf ci am kenn ki nga xam ne ñu ngi ko daan commandant Fatoma mooy commandant wu faction Jakaay. ña nga xam ne ñoom ñi moom mu ngi Ziguinchor de moom mais ña nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ba léegi. Mm-hmm. di xaar seen extrait de naissance dañu kidnappé jabar ji ak doom yi. ah waaw. Mm. daal di ne euh, lii boo gisee ñu koy def parce que dañ leen diggoon ay extrait de naissance te waa ji moo leen convaincre woon ba ñu joxe seen tour joxe seen arm ba tey ji jotuñu extrait de naissance jotuñu carte d'identité mm-hmm. donc loolu mu nekk benn problème mu rëy rëy rëy waa dynamique de paix une femme que je salue au passage Fatou Badji ñoom moo moo demoon négocier ba ñu delloo ndaw si ak ay doomam ñu ñëw si Ziguinchor donc loolu moo tax ma ne dañ ci interpeller état du Sénégal munoo bëgg une chose et son contraire waaw mënoo bëgg jàmm ji ne jàmm nga bëgg ci ci Casamance am ONG bu dox bi ciy dox am organisme bu mel ni USAID. Mhm. dugal ci ay millions ki million millions parce que tamit il faut le dire euh, opération bi depuis 2020 état du Sénégal dugalu ci dërëmam. d'accord état du Sénégal ci dërëmam. Mhm. USAID américains yi ñoo dugal seen xaalis ci wàllu démobilisation désarmement bi. Mhm. ku ñu démobiliser yëkkati enveloppe jox la. ku ñu désarmé yëkkati xaalis jox la. ainsi de suite ba processus de euh, d' établissement de euh, carte kii nu mu tëddi extrait de naissance yi. USAID moo ko financé moo financé maire yi moo financé xale yi ñu wàccoon ci terrain bi di def recensement yi. kon Pape Sané su ma déggee bu baax mooy euh, boobu les procédures bi nga xamante ni état bu Sénégal démarré na ko war na mën a nekk ci ay procédures yoo xam ne nii état bu bees bi ko wuutu war na ko mën a continuer. bu mu ci amal rupture parce que si chemin bu baax lañ nekkoon. waaw chemin bu baax la cest à tamit côté boobu loo mën a mën a mën a tingal wala reprocher le le le da nga leen di nangul ni côté boobu ils ont réussi quelque chose parce que lii ma lay wax nii ça c'est depuis 2020. Mhm. man maa ngi ci depuis 2020 ça se fait dans la plus grande discrétion. kenn musu ci wax musu man mii li may gaaw bëgg a wax yëpp. dama ko noppiwaale ba ren ji c'est-à-dire ça a été fait dans la discrétion nit ñi di ci yéeg di ci wàcc di def ba ñu si fii suñ la génnelee fi nga xam ne nañu dajale registre yeeg fonds de dossier yi mais da nga naan non c'est pas possible alors aujourd'hui les gens exigent des des des mais de daaw géej daaw géej bi USAID génne na 33 millions joxe ko foofu pour ñu def audience foraine mhm. lañ fa def ci audience foraine la fa génn ci dossier motul motul 500. matul 500 donc il faut que l'État xam lan la bëgg. il faut que le ministre de la justice tamit prenne ses responsabilités. waaw. c'est un processus qui a été mené depuis la présidence ñu dénk ko ministère de la justice il faut que le ministre de la justice le garde des Sceaux prenne ses responsabilités mhm. au nom de la continuité d'État parce que nag maa ngi dégg ay ay maa ngi dégg ay nit ñi nga xam ne ñu ngi ci ministère de la justice boobu ba ma ci waxeek ñoom lañ ma wax dañ ma ne non loolu bañ koy def nguur gële la woon mel ni que li fi nguur gee la def ñoom ça les engage pas mhm. donc ça veut dire que ils veulent mettre à terre tout ce qui a été fait mhm. et man dama jàpp nag ni mhm. dëkk bi fu mu toll ku ci nekk ci ñun war nga sóoraale leneen lu dul sa sa nafsu mooy maanaam yow la nga ciy am am na ñi nga xam ne tour nañ ciy ut am na ñi nga xam ne koppar nañ ciy ut kii nag du xaalisu Sénégal xaalisu peuple américain la par le canal de l'USAID waaw bu askanu Amérique nag ñëwee di jàppale Sénégal ci processus de paix bi wax fa dëgg yàlla ñii ci bëgg xaalis wala ci bëgg ci bëgg ci tur. Mhm. nañu toog noppalu. nañu fexe ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci àll bi 30 ans 40 ans bëgg dellu si à la vie. Mhm. publique comme tous les autres Sénégalais nañ leen ci jàppale. te militaires yi tamit dañu sonn ci àll bi. Mhm. ay militaire yi nga xam ne dañ fay teg un an nekk ci àll bi nekk ci yooyu nekk ci euh, mala yi et consort ils veulent revenir vivre mhm. auprès de leur famille dafa metti waaw dafa metti donc nag loolu comme nag y a des jalons qui sont posés pour le mhm. processus de paix mhm. te lii moo ci des wax fa dëgg yàlla que le président de la république prenne sur lui la ferme décision que processus bi egg à son terme c'est un processus qui n'est pas illégal c'est tout à fait légal il faut pas dire que état bi fi jóge moo ko engagé état bi c'est vrai que nag li ñu engagé ci lu baax bëriwul ci seen bilan ah. mais li nga xam ne as tuus la mu baax lii bokk si. pourquoi pas ne pas le terminer. bañ ko defalee bañ ko defalee César Atoute Badiane ak ay ñoonam. ay moom laa la doon wax. parce que tey jii. Ah? Ah? César Atoute Badiane boobu mi ngi voyagé. ñu ngi wax tey jii procès en appel bu Bafa Bayotte yi ubbiwaat nañ ko depuis mercredi mais moom il a été libéré depuis longtemps di doxi ay soxlaam. soxlaam pourquoi pas les autres. voilà mu ngoog. Mm-hmm, mm-hmm. wax dëgg yàlla nag militaire yi moom. boo demee Ziguinchor Aïcha da nga xam ne sonn nañu. mais je pense que Ousmane Sonko en tant que ancien maire bu Ziguinchor il est beaucoup plus imprégné du dossier que que que que keneen léegi il est le premier ministre donc. war bon xaw ma ndax il est imprégné ou il n'est pas imprégné. mais li leer ba leer mooy li ko Alioune Tine waxee kii di Ousmane Sonko ak euh, président Bassirou Diomaye Faye ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mhm. dans ce processus là. Mhm. yàlla dafa dafa def ni Euh, cousin à plaisanterie muy séeréer rek joola ñoom ñaar ñoo nekk à la tête de ce pays là donc ñoom ñaar bu ñu uniree seen force mhm. euh, fexe euh, avec lii nga xam ne Ousmane Sonko yàlla may na ko ko mhm. mooy le premier fils de la Casamance bi nga xam ne dayoo bi mu am am na ko mhm. ñii fi politique ñii fii def leneen ak leneen fii depuis 1940 ba tey ji fii Ousmane Sonko toll amul benn doomu Casamance bu ci toll. donc nag am na la nga xam ne kon moom war na ko delloo askanu Casamance. waaw en tout cas ñu ko ciy interpellé bu baax a baax. Euh, mu di lu am solo Pape xëy na on va terminer par euh, cybercriminalité délinquants yi jamono ji mu mel ni nag dañoo rakkaaju lool Pape parce que surtout au niveau de la douane am na yu nga xamante ni gis nañ ko fa ay vente aux enchères avis de vente yoo xamante ni dañ koy déclarer alors que tey boo demee lu njublang rek lañ ciy jublu. effectivement euh, Salma tu euh, as bien fait de de de de de toucher là où ça fait le plus mal. Mm-hmm. xam nga fu mu nekk nii pour dire la vérité. Mm-hmm. dañuy wax insécurité on le on le tout le temps mais dafa am benn mooy insécurité bi ñu gis agression yeeg yi kërën kërën mais mu amaat beneen forme d' insécurité bi nga xam ne ça commence à prendre des proportions extrêmement graves mooy cybercriminalité tey jii ñun ñii ku ci nekk ci ñun ñi sa àddina mu ngi ci téléphone ku ci nekk ci ñun ñi euh, say données soo deful nag benn saay-saay sàcc ko waaw mm-hmm. tu moo tax loolu ñu war ci taxaw ta war ci taxaw yaa ngi koy wax léegi mm-hmm. dafa am benn gang bi nga xam ne depuis un an gang baa ngi fii Sénégal di évoluer di def li ñuy def te mu mel ni les services de sécurité police gendarmerie wala ak douane dafa mel ni affaire bi yëngalu leen mm-hmm. gang boobu lu ñuy def dañuy dem scanner ay acte de ay ay vente douane ne douane mooy jaay ay oto soo gisee oto yi ni mu buñ la ko présenté ni mu bakkanewoo rek buñ la nee rek dugal rek dangay dugg ñoom dañuy dem scanné ko daal di jël oto yu bakkane jaay ko à di def ci ay prix yu yu yu yu yu yu yu ndaw yu dérisoire bon ay par exemple ñu ne la Prado bu 2018 ñu ne la 4 millions. da nga naan lii xewal la. waaw léegi soo defee noonu. boo ci duggee boo leen woowee dañ la naan yónnee ñu sa photocopie carte d'identité donc muy données personnelles. daa dina la léegi boo ci bëggee bokk ci vente bi dangay joxe avant cent mille francs ñu inscrire la soo joxee cent mille francs ñu ne la léegi tànnal ban oto nga bëgg nga ne oto bii laa bëgg ñu ne la waaw oto bii il faut nga joxe trente pour cent ci njëgu oto bi. Hmm. bu dee oto buy jar euh, euh, cinq millions ñu ne la da nga ciy jox trente pour cent. mais ñooñu ils sont en train de faire des dégâts sur le nom de la euh, en utilisant le nom de la douane en utilisant les logos et emblèmes de la douane. xanaa ñoom yëguñ lool. douane yëg nañ ko douane yëg nañ ko mais man je m'attendais à ce que douane ci boppam saisisse le procureur de la République. Mm. pour setal boppam ci mbir mi. Mm. waaw parce que mënuñu utiliser cachet. turu directeur général douane li ma lay wax ni mu ngi bëgg yàgg te ba tey ji amul benn réaction officielle plainte yi nag bëri na parce que ñi ñu ko def bëri na plainte yi bëri na mais dafa mel ni ba tey ji euh, les service de la cybersécurité lii nekkul seen urgence te lii dafa war a nekk seen urgence parce que imaginel tey jii euh, Aïcha dugg ci tombé ci pièce bi jël carte d'identité am joxe ñu jël carte d'identité Aïcha ut ci beneen puce téléphonique ubbi benn compte Wave wala ubbi benn compte Orange Money man ñi piégé ma jox ma numéro boobu ma versé ci Wave wala versé Orange su ba mooy porte plainte numéro boobu laay porte plainte ñuy jël si Aïcha fekk Aïcha du xam sax lu xew xaw ma ndax vous comprenez un peu moo tax ma ne lii di division spéciale de la cybersécurité mhm. dañu war a xar seen tànk tubéy fexe ba mettre fin au agissements de cette bande là. parce que ñu ngi yore ay car d'identité c' est des données personnelles. qui peuvent utiliser partout fii Sénégal comme bitim réew. donc mu nekk une priorité. muy benn ñaar ñu ngi utiliser le sceau caché du directeur général de la douane. te loolu wax fa dëgg yàlla. war na mun jur suba. Euh, tey man su ma jógee topp douane. xëy na duma ci am dëgg waaye dinaa wàññi crédibilité douane. ci ci ci ci donc loolu douane daf ci war a tamit jóg fexe ba nga xam ne. service yi ñu yore wàll googu muy cybersécurité ak le procureur de la république. yéey ci yàbbi ci. te cette bande la dama ne la ñu ngi commencé yàgg fii parce que ça fait maintenant un an qu'ils sont au Sénégal continué def loolu. Mhm. ak yeneen ak yeneen délits liés à la cybercriminalité yi nga xam ne peut-être le temps ne nous le permet pas. Mhm. mooy la la la la la la la la la pédophilie la pédopornographie mhm. ainsi de suite yooyu la pornographie yooyu yëpp mhm. tey jii nekk na de moyen de chantage yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser mhm. ci cybercriminalité bi donc est-ce que douane mën na saisir pour ñu rembourser leen wala yow yaay dem porter plainte non yow yaay parce que douane fu mu nekk nii euh, li mu mun mooy douane moom daf ci am préjudice ok waaw kii joxee xaalis daf ci am préjudice douane tamit daf ci am préjudice parce que douane nañu utiliser hmm. turam ak kii am. Hmm. voilà. Hmm. boobu lee am na solo baax bu ko defee askan bi gën a moytandiku yenn arnaque yi nga xam ne ñu ngi koy dund. et puis man dama sax comprendre ah, ana yow ana man rek yónni ma sa photocopie d'identité. sa nit war na ko mën a. non buñ la génnee document yi. carte d'identité quand même. non buñ la génnee document yi. yow sa bopp da ngay da nga ciy d'accord. waaw nga dëgg de emblème douane nag tampon beeg. lépp yëpp waaye c'est problématique. loolu war na ciy jóg bu baax a baax. Euh, di ko di ko jaajëfal bu baax a baax ci pertinence bi saa su ñëwee rek ñu jàngati c'est pas pour rien ñu koy woowee ñaancoo bi. mu ngi doon merci. <laughs> merci le ñaancoo de Salma merci en tout cas euh, Pape Sané merci euh, Salma sunu rendez-vous demain incha allah jaajëfalante mbokk yi ci topp gi teewlu gi. dafa battale